أسيروا مع الأبرار هنا أسيروا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله والشكر لله ولدي سلم لساني نوير جناني صفي أماني وزبراني حرجت يوم السبت الثاني لخدمة المختار في شهر سبت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk internet bi seen mbokk seen taalibe seen xarit Abdou Khadre Djily Niang bu TFM ñu leen di nuyu di leen ziar ci bés bu màgg bu tedd bi nuyoo beeg ziar bi nag ñu ci Cheikh Seydil Mokhtar ñaan suñu borom yàggal ko fi mu ànd ak wér ak mucc ak mboolem njaboot Cheikh Fadi di nuyu di ziar jëw di jëm sëñ Mountakha moom Cheikh Mouhamed Bachir ñaan suñu borom yokkute mu sëkk ak mboolem njabootu borom Touba kazalika naka noonu li nga xam ni moom la ñu jox seen kàddu Cheikh Mouhamed Bachir moom Cheikh organisation Magal Touba ji Magal gi nga xam ni ci lañ nekk ren jii ñu nekk ci téeméer ak ñaar fukk ak ñetteelu li waral Magal waaye nekk ci téeméereelu atu équité bi ci bi ko sëñ Touba léegi waaye nekk ci itam juróom-ñaar fukkeelu at bi nga xam ne Serigne Fallou indi la ko fii mu kon. bis la boo xam ne sëriñ bi ci boppam ah. moom moo waxoon en 1921 ci année grégorienne bi waaye en 1339 ci année hégire muy gadda yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni bis bii bi fukk ak juróom-ñett 18 safar naka ñëpp sant na ci yàlla ñu ne ko lu tax mu ni ndax saa su musaan ñëw. suñu borom da daan ful natt yi may teg muy metti loolu daan nañ ci ay jamono ku ko tiim sax da ngay jàpp ni nekkatul ci àddina moo tax tubaab yi am na seen ay rapport yoo xam ne wax nañ ni sëriñ bi faatu na ay yoon ndax daan na toog ab diir daraam du yëngu ay fan kenn du xam ci moom dara ndax diisaayu natt yi ndax da daan fulu bi mu koy waajal nag ci at moom ma leen wax léegi mu fekk fii ci njaareem sunu borom xamal ko nag ni ko natt yi jeex na natt yi nga xam ni moom nga jaayante woon ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ngir nekk xaadimam ngir bañ a tàggoog moom ndax sëñ bi sallallahu alayhi wa ko fekk fii ci Daaru Xuddoos ci jàkka ji ànd ak sahaaba yi ànd ak ahlu badrin nee na boobu sax mënul laal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mënul jëmm ji am na kiiraay lu dox seen diggante waaye sallallahu alayhi xamal ko ni que yegg nga foo xam ni daawum daawuñu la jox raaye bii te amoo ñeent fukki at yow nag sa ñeent fukki at na ñetti weer waaye garaatu xutbu zamaan bi laa la bi sant ko li ko nag waaye dafa mel na sama mar ak sama cofeel ci yow ak sama bugg ci yow ak bugg laa liggéeyal dafa yokk ndax ñii nga àndal bëggatuma tàggoo ak yow dama bëgg ñii nga àndal nii ñu def ba ànd ak yow ma am loolu sallallahu alayhi wa sallam ni ñii li leen ko may tuur deret la woon xare yi la woon te loolu jeex na ndax xare bu mag bi jeex na bi ci des mooy jihaatu nafs leneen li la ko mën a mayaat nag mooy ñu teg la ay nattu boole la ak ay noon teg la ay nattu yoo xam ni dana mat limbu sóoratu Baqara ak Ali Imran boo ko attanee grade bi nga am ko boo ko attanul nag mu doy waar bare na ñoo xam ne bu nu ma saan toll fii nga toll tey jii bu ma leen ko waxee dañ koy bëgg waaye bu nattu yu tàmbalee buñ leen dimbalewu dañ cey jóge yàqule te yow yéenewuma la sëñ Tuubaa ca jom ja ak cofeel ga ak himma bi nekkoon ci moom mu ni sallallahu alayhi wa ruugi de sàkkuma ko ba xam lu muy àttan ak lu mu dul àttan waaye bu ma ko sunu borom téyelee faatuwuma nu natt yu toll danaa ko muñ ngir bokk ci ñii bi sallallahu xam wa sallam xamee nag dogu boobu ci moom daa di koy xamal nag ni ko kon da ngay génn dëkk bi génn Touba gi nga xam ni aaral nan la ko ba benn nattu du la fekk ndax yaa ñaanoon fii ci kër gii fii ci kër sëñ Saliou fi bindee mat la bu ñaan sunu borom aaral ko Touba moo tax mu ne arasallaahu yàlla aar mu génn Touba dem Mbàkke Baari mu ni ko am na sa joo xam ne itam feeg mi ngi ci kaw suuf nattu buñ la teg bu ñaanee sunu borom teggi muy sëñ bu soobee di càmmiñu maam soxna jaar sëñ bi dem Jolof def fa bu gàtt sëñ Bousso bi wàcc liggéey ci benn yoon boobu la sëñ Tuubaa dellu si waat Tuubaa bi lu dul loolu bi mu ñëwee fii en 19 juillet 1927 Jolof googu la nekk ba le 10 août 1895 mu déparé fa nag dajeeg ñoom jeewal bés boobu nag détermination détermination bi nga xam moo nekkoon ci moom nee na ca bés boobu rek لخميني أمن لي نخ بس بوب دفع جاكر لوك رسول الله جهرن في دفع أمون كيراي واي في جسلكم جس صحابي موتاخ منال أسير مال أبرار ما عندك عندك يوم نخ ليمو بكون أمنا كدور تلتاقو جهرن تبي أجني مانا موتاخ ببي منا كندر babu nekkel nan nan rafiu kitabullahi mangi ande tere yalla bi wal mustafa nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu kon li mu bëggoon daal xudus yàlla defal na ko fil bahri day dem koon wane na ni kon bu ne woon fil bahri nga xam ni fii lay liggéeyee du jéggi géej waaye ba mu nee fil bahri rek day jéggi géej loolu nag am gu mu amoon loolu xam ni léegi nag li ci des mooy layal lii mu am ndax bu fekkoon ni bi mu teewee jeewal sunu borom xamal na ko ni que li nga bëggoon lépp am nga ko mënoon na ni mën na yem foofu yam Louga dëkku sëñ Atou mi ak Thierno Bachir Tall mu baax ziar doomam ju tedd ji njaboot Cheikh Oumar gépp ndax seen maam moo feeñaloon sëñ Touba fii ci Mbacke boom Cheikh Oumar mooy topp leeru Touba gi ba ñëw fii ci Mbacke fii ñuy suul tey jii di denc ñi jiitu ji Cheikh Oumar sanc na foofu muy bàq yeeg ñëw gis soxna Jaara xam ni borom Touba mi ngi ci soxna si leeru borom Touba mi ci soxna si kon ci loolu la sëriñ bi nekk. dogom googu ak pas-pasam boobu moo ko may ñooñu nga xam ni seen diggante mat na junni ak ñetti téeméer ak nangam mu dem ba bokk ak ñoom yem ak ñoom ci yonent bi sallallahu dem ba sallallahu alayhi wa sàkku ci suñu borom mu nekk liggéeykatam raama rasulillahi min illahi kaw ni xadimuhu abdullahi loolu moom moo waral mu ne nag lii ma yàlla defal ni nattu yi bu 18 safar ñëwee dama ko daan séenu 18 safar 1339 sunu borom xamal ko ni que léegi ay may la doon muy nekk 18 safar 1921 gannaaw ay may lay doon nag te may yi at mu nekk dañ koy ful mu ne nag nan ma ci santale yàlla ndax lii sama cant bopp rek doyu ci na ñëpp ñëw képp koo xam ne sama mbég sa mbégte la sant le ma ci yàlla ndax li ma ci am ak yéen nit ñi ma yaakaar li leen ci yàlla defal looloo waral 18 safar at mu nekk muy dolliku àddina bi yëpp itam rawatina kilifa diine yi ci biir réew mi xam ni ñun ñoo ko bokk xam ni sëñ ba muy dem waxul woon nii damay dem liggéeyalu yonent bi ak ràmmu samay njaboot sama doom wala déedéet xaw mii la wax ñun ñëpp kenn génnul ba ci ñi nga xam ne bokkuñu diine sax ci Sénégal génnewu la mu bëggoon ci ñun am na ko mooy sunu texe la mu bëggoon ci yonent bi itam am na ko doon xaadimam à moo tax mu nekk antal karim anal xadim dëhëran uddiimu fii ka sanaay wassalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu asiiru mahal abraari hiina asiiro